waaw eh, nañu dimbali rek ciment bi gën ko wàññi population bi ba ci dund bi yëpp ah. yokk bi d'abord ci àdduna bi yëpp la ah, li ko gën a wund nag bokk na ci conflit maanaam xeex bi am ci diggante Ukraine ak Russie. may leeral ne man locataire la lenn daal laa gis ne xëy na mën na xaw a tax affaire gën a jàppandi mooy ñu gën a promouvoir maanaam ñu gën a dooleel les logements sociaux. il faut que état jéem a xool naka lay def ba mën a euh, réguler njëg yi euh, état. liñ ko proposé mooy digitalisation ba képp kuy loué ñu mën a xam exactement lan nga war a fay. mais bind nañ autorité yëpp wax leen ko mais ba léegi foras daal di xëdër. yokkute yi day wàññi pouvoir d'achat wu ki nga xam ne moom mooy consommateur bi te tey ku waxal yàlla xam ne location dafa xoj boroom kër yi. Mm-hmm. d'accord ñu ñoo ko déggandoo déggandoo autant pour moi ndaxte nee na actuellement location dafa xoj borom kër yi. Mm. Euh, kon euh, jamono ji nag mun nañ ne day gën a métti ci euh, askan wi ndaxte yokkute ba nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci matériaux de construction yi. Pa Moussa Camara bu ñu dégluwee élément bi. Mm-hmm. ki nga xamante moom mooy agent immobilier bi mi ngi ne ni lii di guerre Ukraine wala sax mun nañ ne crise mondiale bi moo taxit jamono ci prix daal di yow en tant que ki nga xamante ne dangay taxaw ci défense euh, di défendre ay consommateurs ndax jàpp nga ne ne loolu loolu mooy justifié euh, justifié li waral ñu yokku yokku prix su fekkee ne ànd nga ak moom est-ce que jàpp nga ne ni loolu wax na tax ba jamono ji euh, Sénégalais wax a dund lu métti. waaw Salma dama amaat kontaan bu baax a baax dal fii nii yaakaar naa ne sama xam-xam sax màccul bu bëri. ci ci wàllu boobu. waaw mais waaw mais xam nga tey jii dafa am loo xam ne moo fi nekk euh, nit ñi duñ ko bàyyi xel parce que ba ñuy wàññi foog naa location yi c'était en 2014. donc ci hmm. biir wàññi bi noonu yaakaar naa ne avant wàññi bi matériel yi boobu. Hmm. yokkagul woon ni mu war a yokkoo daal donc tu vois donc bu ñu demee ba nga xam ne jamono mi ngi dox di dem ñu ne guerre bi ñëw na donc man pour man c'est abusé parce que dañ koy bëgg a tënk ci wàllu guerre. te warul mën a nekk ci wàllu guerre parce que war nañu jéem a xool en fait le le le but exactement li li tax affaire bi fan la fan la sooxee parce que tey jii ñëpp xam nañ ne guerre am na fi muy Ukraine diggante Ukraine ak Russie kon pourquoi ñu mën a ñëw wax ñu ne ñu guerre bi moo tax te alors que ba ba ñuy wàññi en 2014 prix bi euh, yokk gu woon li li tax ñuy wax yokk. xamante ne moom mooy Elimane Sall mm-hmm. bokk na ci ñi nga xamante ni jot naa leen jël ci uh, vox mm-hmm. pop bi mm-hmm. mi moom mi ngi doon ne maanaam loolu mënul justifier li waral ñi daal di yokk prix parce que nee ne day répercuter ci pouvoir d'achat uh, locataire bi waaw mooy li ma mooy li may wax rek mooy uh, parce que xam nga nit mënoo di jël di justifier par exemple comme li mu wax ni dëgg la parce que ñu ko teg foofu donc c'est quelque chose boo xam ne en fait lu waay neex def la maanaam un jour mus naa dem euh, ci benn marché may laajte mooy ki nga xam ne c'est un c'est day jaay ci wàllu yëngu ci wàllu ma matériel bi ma ko laajtee daf ma ne y a deux types par exemple ci fer bi y a deux types de fer fer local bi ak fer bi nga xam ne day jóge bitim réew mhm. mu ne soo xoolee ñu bëre du ñuy bëgg jël fer local bi dañuy bëgg di jël bi nga xam ne mooy jóge bitim réew te léegi bi jóge bitim réew bu ñëwee en fait duñ duñ ko duñ ko maanaam état bi du ci def lu mu ci war a def donc ce qui fait affaire bi day répercuté ci ñoom. d'accord bu répercuté ñoom automatiquement pour ñu mën ci génn dañuy dañuy dañuy euh, fexe ñoom tamit nu ñuy yokkee ñoom tamit. Mhm. par rapport ak ki nga xam ne mi ngi ñëw di ko jënd. Mhm. donc mu nekk loo xam ne lu doy waar après ci laa ko laaj ma ne ko mais est-ce loolu yoon la tey est-ce que. ñun ñi nga xam ne dañ koy consommer wala affaire yi est duñ ci gaañu mu ne effectivement da ngeen ci gaañu mais état bi moo war a def ay pàcc yoo xam ne Euh, ñu jéem a waxtaan ak nit ñi jéem a jéem a solution par rapport ak kii boobu la. d'accord euh, tey jii nag euh, am na la nga xamante ne moom jaaxal nañu. Mhm. mooy siman bi parce que Sénégal fii am na ay sociétés yi nga xamante dañuy yongu ci lu ñeel wàllu ciment. Mhm. te ce que loolu mun nañ ne am na rapport ak guerre Ukraine bi. wàllu ciment bi waaw <laughs> xam nga <laughs> parce que xam nga dañu nekk ci dëkk boo xam ne en fait. du ñu wax carrément li nga xam ne moo moo mooy mooy dëgg parce que xam nga ciment boo xoolee par exemple pour na pas faire de publicité donc euh, yàgg nañ fi gis ay soci société yoo xam ne yàgg nañ fi ci wàllu cimenterie yi ay dégg donc mosuñoo am problème donc ciment bi mu ngi doon jar ci prix boo xam ne loolu lañu loolu lañu nangu woon pour mu jar ko mais yàlla dafa def ne bu dara ñëwee rek sénégalais dafay ne loolu moo tax lii am mm-hmm. te pour man waruñu waruñu tënku ci loolu. parce que loolu bi muy am c'est tout récent. guerre bi muy am c'est tout récent. donc mm. nekk na loo xam ne nag waruñu ne carrément carrément lii mooy problématique bi nga xam ne que nii moo tax tey ciment bi yokku alors que ñun ñu ngi am ay usines yoo xam ne ñu ñu koy produire fii nii. Mm. donc c'est juste que dañoo am dañoo am benn problème problème bi mooy lan mooy que ne euh, ñun li nga xam ne moo nekk fii au lieu ñu valoriser ko au lieu ñu jàpp ci au lieu ñu miser ci. carrément liñ ci war a miser mais duñ ko def mais dañuy bëgg di jéebaane bëgg ñu li nga xam ne c'est importé ñu bëgg bi jël loolu par force te warul demee noonu te loo gis ne rek war nañ ci mën a waxtaan andi ci ay solution hmm. par exemple par rapport ak li nga xam ne moo fi nekk donc li fi nekk nag suñ ko jëlee nag boole ko euh, li nga xam ne nag ne euh, moom lañu war a moom lañu bëgg hmm. ñu jàpp ci ñu jàppalante yaakaar naa ne bu boobaa ne instant boobu dinañ mën a au moins Euh, bañ a am yenn problème yi nga xam ne par exemple hausse des prix naan ciment bi yokk na parce que dafa jógee fële yokku loolu la daal. d' accord euh, tey nag euh, bu dul ciment rek euh, ñoo ngi wax waxu carreau aussi. Mhm. di wax waxu peinture lépp a yokk actuellement. Mhm. te su boobaa mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy bailleurs yi bu ñu xasee ba tabax dañu ne. Mhm. la nga xamante ne jot nañ ko génnee comme frais. faaw ñu uti seen i bénéfice. léegi su boobaa gis nañ ne locataires yi aussi ñoom ñoo ci wax dund lu métti. ndaxte seen pouvoir d' achat bi dana wàññeeku bu baax a baax ndaxte ñoom aussi su boobaa kañ la ñu mun a am kër. mais man pour man yokk bi bailleur bi di yokk nii ba pare tënk ko ci ci ay matério man pour man c'est pas une raison parce que boo xoolee jamono bi ñuy wàññi location bi matériel bi cherul woon noonu donc wàllu yokk ak wàllu li bailleur yi di def yàgg na fi parce que bailleur yi yàgg nañ di yokk seen location ci li nga xam ne ne ne boobu instant boobu euh, prix bi ci boppam mu ngi nekkoon fa mu nekkoon mais bailleurs yi da ngay gis koo xam ne parce que ñun ñëpp dañuy louer location la ñuy nekk. Mm-hmm. donc suba suba ba ngoon dañuy nekk ci wàllum location donc da ngay gis ne que ne par exemple dangay gis koo xam ne da lay da lay bu lay louer da lay louer loo xam ne yow da lay wóor na ne que ne lii jarul loolu boo xoolee boo calculer prix bi mu jëndee matériel bi ak lu mu ci def yaakaar naa ne waru ko def parce que c'est abusé imagine loué la benn studio boo xam ne ñu ne la à trois cent cinquante mille mm. est-ce que ñoom dañuy xool par rapport ak dëkkuwaay bi mm. maanaam koñ bi nga nekk par exemple bu fekkee quartier résidentiel la ñoo ne non comme que fii nii la xaar ma euh, xaar ma ma ma kii nu ñu koy waxee xaar ma euh, ci mm. prix location bi may loué ma loué ko à trois cent cinquante mille wala quatre cent mille wala cinq cent mille parce que loolu état bi daf ci am part de responsabilité lu tax mu ci am part de responsabilité mooy que ne réguler wu ko boo xoolee bu ñu waxee ne nañu wàññi ñu ne nañu wàññi nangam nangam pour cent te nangam pour cent boobu noonu boo ko waxee rek ki nga xam ne mooy bailleur bi boo ñëwee ci moom ñu ne ah état bi wàññi na lii moom mu ne moo bañ du wàññi la pour pourquoi loolu yëpp loolu tamit c'est des problèmes yoo xam ne euh, nit ñi ñu ngi koy dund te boobu ba léegi ba fi may waxee yow nit ñu ngi koy dund parce que tamit bailleur yi am na ci ñoo xam ni ils font du n'importe quoi il faut qu'on se dise la vérité. aussi si l'on se dit la vérité aussi. mënoo mhm. tamit prétendre que. Mhm. Euh, par exemple mën nga dem benn quartier résidentiel. Mhm. am fa. benn appartement au même prix que boo demoon xëy na euh, Bunkiling par exemple wala voilà, mm -hmm. benn quartier mm -hmm. reculé euh, de la banlieue tey jii loolu aussi ça joue waaw effectivement parce que boo xoolee xam nga loca <laughs> location fii la cher mm. boo xoolee quartier yi ñu nekk nii fii la gën a cher par rapport à fële banlieue bi mm. parce que banlieue boo demee foofu tu as moins de sa mun nga ko sam am ba cent mille wala quatre vingt mille. moo tax ma ne la sa dépend aussi ci ci ci ci lieu bi. waaw ça dépend ci lieu bi parce que. boo xoolee parce que suuf yi déjà bokkul njëkk yi. voilà mais nag xam nga loolu mooy problème bi buñ ko naree tënk ci ay kii parce que euh, ci ay suuf suuf bi baax na wala suuf bi kiwul nangam nangam buñ ko xoolee ci foofu rek. dañuy dañuy xaw man pour man dañuy xaw a sooxe. parce que boo xoolee euh, am na foo xam ne état bi taxawoon na fa. Hmm. te boobu xam naa fu mu toll toll nii commencé guñ ko sax euh, établir mooy lan mooy surface bati bi maanaam ñu xool quartier boo xam ne nekk ni surface bi nangam ñu évaluer ko ñu ne mm-hmm. képp ku fa nekk képp ku fay dëkk nii nga war a fii nga war a jaar mm-hmm. da ngay respecter yi mm-hmm. lii ax lii lii soo ko respecté wul nag après ñu xool ban daan la ñu mën a teg wala affaire mais soo xoolee ñun fii de plus en plus boo xoolee bu njëkk ba euh, location méttiwul woon dañ la doon wax studio quatre-vingt mille sax mun nga am fii studio. d'accord mais léegi dafa dafa jéggi dayo mhm. jéggi dayo mooy lan loo wax ñu ne la non état bi moo yokk moo tax ñu yokk mhm. matériel bi dafa cher moo tax mu kii mais ñun dans tout ça ñun ñooy sonn. Mhm. parce que ñun ñooy dem di wuti ji. ñooy dem di jë jënd ji te du ñu leeral li nga xam ne moo am. donc ñun nag ci côté boobu nag la ñuy taxawee nag ñu ne nag nekkatul ay chiffres. dafa war a nekk loo xam ne nekk ne. carrément dañu war a teg nañu carrément nii la jëf la li li ñuy wax rek jëf la. Hmm. waaw hmm. maanaam soit dañuy dañuy dañuy def nii wala ñu def na la. Hmm, Cheikh Tidiane daam li nga bëgg a wax. man euh, Moussa Ka man dafa am nañu xam mhm. euh, euh, mhm. mënatuñ ci dara. Mhm. problème bi mënatuñ ci dara. yéen yéen ñi lan ngeen fas yéene def. pour à que maanaam résoudre problème bi. waaw xam nga comme <laughs> fi ma lay dégg nga waxee. da nga ne état bi dafa dem ba ne mën a ah, tukki dara Macky Sall waaw mais loolu c'est du du yoon sax parce que du yoon parce que tey jii état dañuy wax ne par exemple lépp lu fi lépp lu nekk ci dëkkam moom moo ko war a gérer. Mm-hmm. moom moo war moom moo war a xool jël dafa mel ni ay pion yooyu teg rek nga yëkkati ci pion bi teg fii teg fii placé kon lépp loo xam ne xam na ne que mu ngi daw fii moom moo koy diriger. Mm-hmm. te bu waxee nii la. fépp ñëpp foofu la ñuy jaar kon man tey su ma toogee ba dégg ñu ne état mënatu ci dara ça pose problème. Mhm. ça pose problème léegi ñun nag suñu wàllu bopp lenn la carrément dañ ciy taxaw taxaw bi nag naka la il faut que état dégg ñu par force. Mhm. Ah, maanaam daf ñuy dégg ne carrément ñu mu wax ñu wax ñu ne ko ah carrément lii la. parce que mhm. ñun ñooy sonn. nan ngeen di waajal. non li ñuy li ñuy waajal lenn la mooy par exemple euh, da ngay dañ koy toog waxtaanee ko. maanaam xam nga nit moom booy dem rek doo tëb tëb rek nga dugg. Mhm. nga sóobu parce que boo sóobu lu la fa fekk rek yaa tooñ sa mais am na stratégie de de combat boo xam ne da ngay waxtaan ak nit ki. Mhm. mais carrément ne ko lii ak lii ñun nii leen ko bëggee. nga mhm. defee ko nii ak nii. ñun kan ngeen kan kan état wala nit yi wala eh, stratégie boobu ñan la. non stratégie bi stratégie bi xam nga dangay wax sànq nga ne état bi ñoom dañ ci génne seen loxo ma ne la du yoon ñu génne ci seen parce que état bi dañ ko fi teg pour lu lu metti askan bi li nga xam ne askan bi mu ngi koy jàngoon teg ñu taxaw ci. kon suñu demee nag ba tey ñu ne ñoom dañuy génnee seen loxo man je me dis que y a problème. Hmm. kon ñoom dañu war a déglu dañu war a déglu par force. ñi nga xam ne naka ne ñoo fi nekk. est que ay wax est-ce que ay wax. non du wax du wax moom laa lay wax sànq. yaa ngi naan stratégie waaw xaw ma sax li ngeen di nee naa la nga sànq ñu ngi wax ñu ne ay waxu chiffre ay yow man dama ne léegi dootul chiffre. d'autres chiffres parce que yàgg nañ di wax ay chiffres on a pas trouvé de solution. dañuy ne non kii bi hausse bi nangam pour cent la nangam pour cent nangam pour cent mais bu ñu demee ba ci biir on n'a pas de solution dañuy nekkaat di retourner waat. Mhm. à la case de départ. léegi nag mhm. il faut agir. agir bi lan la da ngay agir de manière professionnelle de manière intelligente. mooy naka. mooy maanaam nga toog xool waxtaan ak ñu leen di ak. lañu kan ngeen di waxtaan. xanaa Eh, état bi ngeen waxtaan moom mooy seen d'accord <laughs> léegi yan ah. argument ngeen di teg ci état bi la ati ati expliqué ñu non non déedéet xam nga argument yi ñuy teg du argument boo xam ne dañuy toog fii rek fësal ko hmm. toog wax après suba ñu yóbbu la ñu ne waaw Moussa moo ñëwoon fii mu ne argument bi mais képp ku nga xam ne da ngay xeex doo wax sa plan de de xeex nooy xeexee sa stratégie pour mi ngay xeexee. Mhm. léegi man li ma bëgg a xam comme par exemple tey euh, bu ñu sukkandikoo ci association pour la defence des consommateurs. Mhm. Mhm. te kii di Elimane Sall jiite ko. moom dafa proposer lii di digitalisation. parce que dafa jàpp ne tey bu amee digitalisation. dana tax ba ñoom euh, dinañ xam est-ce que nit ki fu mu nekk comme euh, ci location. ndax lii prix bi yeenu na maanaa ou pas. maanaam moom dem na ñaan na ko état pour ñu digitaliser mbir mi mais jusqu'à présent mhm. état euh, jotut euh, répondre seeni attente boobu Mm-hmm. yow tey nga yëngu nga bokk ci membre euh, mm-hmm. pour la défense des consommateurs donte sax bu yàgg ñoom Elimane Sane bokkoo leen euh, kuréel mm-hmm. mais yéen tey est-ce que yéen yéen yéen a ngi jéem a teg ay plan comme par ah, digitalisation wala euh, nu mu tudd sax leneen la nga xamante ne mooy tax tey état sax bu leen déggee fii ci télé bi mun a ni ah ñii de li ñuy wax c'est intéressant effectivement xam nga ci wàllu boobu nga wax ci suñu suñu mbokk moomu Elimane Sall dañu wax ci wàllu digitalisation parce que boo xoolee monde bi dafa évoluer dafa avancé man je suis tout à fait d' accord ak li mu wax mais xam nga digitalisation boo koy def dafay fekk ñenn ñi xam ko ñenn ñi duñ ko xam comprendre day fekk ne ñii xam nañ luy digitalisation am na ñoo xam ne <coughs> mais état tey bu paree digi digitalisation. Ah. pour mu am day am. parce que mm-hmm. accompagnement kese la. même su mm-hmm. fekkee ne yow bailleur bi sa jàng sori wut. Mm-hmm. mais euh, benn système la ba nga xam te dañuy toog rek defu lépp ci machine bi. boo toogee sa boo toogee fee xaw ma euh, fan ci ville yaa xam fan. ci biir Sénégal boo tappee rek nga xam lépp nu mu demee. kii locataire bi lii lay fay. par fin mois fi mu dëkk fii la moo ngi ci quartier bii nii. di daj yenn coono yi waaw loolu laa lay wax xam nga euh, je tout à fait d'accord déggoo ma ne Elimane li mu wax mhm. loolu avancement la mhm. parce que boo xoolee monde bi day évoluer mhm. te monde bi technologie moo koy moo koy doxal jamono bii ma wax yow parce que lépp léegi fii amatul lenn loo xam ne avant lañ ko ni nga ko daan defee la ko ne di ko defee donc xam nga digitalisation dafa am accompagnement comme di nga wax état mais est-ce que ñëpp ils seront censés de comprendre que c'est la man côté boobu mooy sama mooy sama mooy mooy mooy question man mun naa ko comprendre mhm. euh, monsieur Cheikh mun na ko comprendre yow mun nga ko comprendre mais est am na parce que Sénégal boo xoolee ñi fi nekk citoyens yi fi nekk dafa bëri ay pàcc yu ci nekk mhm. waaw ñii dañuy xam ñii duñu xam mais on peut peut-être on peut le faire mais ban manière lañ koy defee d'accord ban manière lañ koy defee mhm. xam nga man li xam li ma jaaxal sànq yow da ko wax bi sax moom mu doo wax bi mooy am nañ fii ñaari société de cimenterie fii ñaari société de cimenterie ba tey léegi nag euh, euh, maanaam ciment cher euh, maanaam mat lépp a cher waa problème bi am léegi yéen ñii man li ma bëgg xam mooy argument man new ma kii xam na stratégie de combat kenn du ko wax mais dama ne argument yow yow mën a wax nit ñi dégg la fii nga ne argument bii la ñuy teg bu ñu toog ak état mhm. ou bien ñun lii la ñuy def dégg nga lii lañ leen di wax. Mhm. man loolu laa bëgg dégg ci yow. waaw yaa ngi wax ci wàllu cimenterie wax naa ko fi léegi nee naa wàllu cimenterie li nekk fii ci ciment euh, ay usine de ciment. Mhm. buñ ko valoriser jaarale ko fi nga ko war a jàllale yaakaar naa ne yokkute bi. ci naka. non mais xam nga <laughs> xam nga xam nga xam nga tey par exemple man tey su ma lay suma entreprise créé ko fii Sénégal. Mhm. parce que su ma ko créé dëkk bi moo tax ma créer ko. parce que je vais prendre des jeunes yoo xam ne fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo ma jël leen ñu dugal leen ci kii bi mais bu fekkee ne yow sa wàllu bopp da ko créer ba pare après ki nga xam ne moo la féetee kaw muy état bi war la jàppale jàppalewu la léegi muy jël ñi nga xam ne ñoo fi nekk ne leen da ngeen di jébaane ngeen dem jë jëli li nga xam ne mooy importé ñu jéem a nasaxal li fi nekk. Hmm. non il faut qu'on se dise la vérité parce que xam nañ li fi nekk. on n'a pas besoin par de parler de dire ne non dañuy war a kii dañuy kii parce que un euh, quelque boo xam ne da nga koy def. dans ta vie yow doo toog nga ne fii nga parce que tey j'ai pas besoin tey ma toog fii ma ne non damay jaar fii damay jaar fii lii laay defar état lii laay defar état parce que man sama wàllu bopp xam nañu te am na ñoo xam ne naka ne ñooy sama njiit tey ñoom laa sekkal affaire bi tey bu ma toogee fii tey ma war a wax dévoiler les secrets yi nga xam ne moom la war a wax mais ça n'a pas de sens mais soo xoolee est-ce ah, nga baal ma ciment importé bi il faut ñu taxaw foofu ciment importé bi ak bi nga xamante ne moom la ñuy defee Sénégal mhm. est-ce que am na différence déjà ci prix bi ciment importé bi bi ñuy indi ak bi nga xam ne moom la ñuy defaree fii est-ce que am na différence ci prix bi non je pense pas que mu war a am différence parce que waaw qualité bi nag non xam nga. xam nga bu fekkee dañ koy jéggaani mën nañ comprendre peut-être taxi yi. Mm. ak yooyu noonu moo ko seeral. mais su ñëwee ba fii. waaw Pape Moussa yow Pape neex deret dafa neex deret mais il faut aussi ñu xool euh, uh-huh. euh, si côté prix. parce que mën naa ne xëy na bu fekkee bu ñu importer la taxi beeg yooyu noonu mën nañ comprendre mu gën a cher. mais bi nga xam ne fii lañ koy defee Sénégal saa waay boo ko laalee ñu ne la teggi sa loxo ndax cheraay. Uh-huh. est-ce que après am na am na sens ñu ne bu ñu importer. waaw mais Salma. xam nga xam nga tey euh, li may wax mooy lenn xam nga ciment ciment la des fois les gens ils te disent ne non qualité bi mooy bu baax bi wala affaire man pour man pour sama wàllu bopp. Mm. ci sama xalaat laay waxee dem li nekk euh, li nekk extérieur di ñëw fii. Mm. ak li nekk fii man pour man c'est la même chose. c'est parce que un Sénégalais moo bëgg par exemple bu jëndulee par exemple à l'extérieur il se dit il se dit que ne. non man li ma jënd noo baaxul. mais li ñu defaree fii moo war a gën a yomb. ci sama ma yaakaar wala je suis d' accord loolu laa lay expliquer. Mm-hmm. mais loolu est ce que photo état la tamit. non xaaral xam nga xam nga par exemple li nekk fii ñu war ko utiliser. Mm-hmm. ñu war ko utiliser. Mm-hmm. xam nga tey par exemple man su ma toogee benn nit toog mu ne man am naa suma entreprise léegi may defar la même chose.